en campagne à Diourbel Abdoulaye Sylla lance un défi à Sonko Abdoulaye Sylla tête de liste coalition ànd beesal Sénégal moom day daal dina défier leader bu Pastef bii di Sonko nee na Ousmane Sonko dafa war a nangu nag ñëw débattre ak moom bés bu ñëwee débattre ak man dinaa ko wan ne xamul dara moom mii di ab businessman wax ne kon daal bu ñëwee dina wan Ousmane Sonko naka la ñuy créer richesse naka daal la ñuy defee kon ba yor am réew ci yorin wa gën ngir nag askan wa man caa gis seen bopp moom leader bu ABC mooy ànd a Sénégal rek marqué wu marqué wu itam bàyyiwul itam ki nga xam ne moo di Amadou Ba bu ñu sukkandiku ci moom daal nee na temps bu Amadou Ba moom daal dinay jeex maam daal Amadou Ba moom jamonoom jeex na. la daal mooy kon mu retiré wu kon dem toog wax na itam yéen a joo xam ne amoon na ko ca Jurbel bëggoon leen a dimbali ci wàllum assainissement te mujjiwul sotti te mu jàpp naa ay gàllankoor moo ko waral waaye daal la mu jàpp mooy nee na Ousmane Sonko daa war a ñëw débattre ak moom te bu ñëwee débattre ak moom dina ko wan ne moom xamul dara dina ko daal jàngal naka la ñuy créer richesse ngir saw askan man koo jariñoo